Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di ah, gis ngeen sànq ñu ngi noonu ak euh, Matador ñu ngi woon ak Matadi tey nag ñu ngi nee ak wan Lirikal wan Lirikal tey naka kuul maa leen di maa leen di fay di di seetaan tey ñu gis euh, ci ndogu Ngaaka Blindé bi bëggoon nañ nga ñëwoon ñu sa relation tuuti ak Ngaaka bon ngaa ko relation amicale bu naay sa am rek xam nga man moom je le vois comme un frère quoi tu vois tey na ndogoom xam nga organisé euh, woo na ma pour ma ñëw teew si waaw pour ma ñëw def sama participation je pense que loolu rek lañ am lañ ñu mën a leen teew fekk kenn ku nekk sa morom ayee que ce soit mu nekk loo xam ne peut-être neexul ñaan mu ko yàlla da koy demal quoi te je pense que tey peut fierté la wala honneur la sax laay wax ñëw fii ci ndogu Baba Ndiaye Guédiawaye voilà quoi c'est mon frère daal. waaw xam yow tamit aussi say projet fan nga ci toll. waaw projet yi mi ngi ñëw mi ngi ñëw mi ngi ñëw xaw man moom je préfère toujours di garder benn suspense par rapport ak samay euh, samay projet yi may def mais bon mu ngi si yoon bi quoi mu ngi si yoon bi yàggatul dara 2021 daal na gars xaar. mais ñamal ñu tuuti lan lañu war a mën a xaar tamit. ah xaar